asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp ñu ni seetaan rawatina ñi seetaan waxtu yi seetu Sénégal tey nag demati nañ feneen fii ci yaraax ma seeti ay jigéenu jàmbaar ay daam de fer ay lingeer bëgg doxantu woon ko waa Sénégal ci liggéey bi ñu yëngu xam naa ne su ma leen ko wanee dina leen sokke trop ay dame de fer ñu gëm seen bopp la muy Alassane ak seeni muy nekk seex yoo xam ne dégguma Adama ak Awa tey Alassane ak seeni laa dégg noo def. maa ngi fi. maa delloo ziar bi. yaa ciy kan. Séni ba yaa ngi si sant yàlla kay bu baax. liggéey bi. waa ñu ci kawam taqale. Mhm. dóor muy daanu rek. dóor muy daanu bu baax. Mhm. nan koy dundee xëy suba dem jëndi affaire yi dem ci nambe yeeg ton yeeg mayonnaise yeeg yooyu. ah waa comme ni jigéen di nekkee ci këram yeewu ne ci añam ak reeram noonu laa koy defee rek man su ma wàccee laay dugg lépp teg. ba mhm. 6 heures ma baxal li may baxal teg ba fajar fajar laay togg. ma yeewoo 5 heures togg pare sangu julli génn. ne ci sama waar lu ma ci am rek jël. ndax yéen ay complice. waa gis nga ñun ñaar boo ñu fekkee boo ñu fekkee ci biir sax ñooy toog. Ah, waaw ñu toj ci biir. waa xam tey fii laay yenn ñu toj ci biir. xam nga waay yow loolu loolu nga war def. lay def. bi saal ba lañ jëm nii. waaw teg waxtaan bi bu ngoonee xale yëpp ñëwaat ñu tegaat ataaya ji ba ban émission ngay seen xam naa ne da ngay jàpp seetu bi rek gis abaa di fëlaale gis gars yi ñoom Madoog ñoom ñoo ñooñ waaw waaw dafa dafa besel waaw gis nga dafa leer waaw foofa neex ak natt bi yàlla teg leen ko nan ngeen koy dundee waaw comme nit ñi ni ñuy dundee rek man moom damay fàtte benn instant sax man handicapé laa parce que man dama firi daal parce que yàlla kenn ku nekk bu la xoolee ba teg la natt mm-hmm. loolu mooy li gën mm-hmm. damay santaat yàlla bu baax di ko gën a dolli sant. amoo ci benn jeune amoo ci benn problème. jamais non man samay morom fu ñuy dem damay sañse lu baax comme ñoom la ñuy sol. seen make-up. barke yonent bi ginnaaw bi tissu yu baax yëpp yaa koy sañse. damay sol lu rafet génn toog fu samay morom toog parce que man xooluma leen. Mhm. yàlla da leen jox ay tànk mais am na lu ma may lu mu leen mayoo ñoom. am na lu ma may man. loo xam ne mayu ko ñu yor tànk. Mhm. man damay yeewu togg sama ndekki lu neex kenn du ma jàppal maay togg ba mu neex. Mhm. defar sangu sama yaay génneel ma bagage yi ma jaay. jaay jaamu yàlla même bu ma ci amee fukki dërëm dama ciy sant yàlla. affaire yi sa bopp la rek. ndax affaire yi boo ne man mii dara daf maa jot dama war a dem sa jumaa ja fii lal fa di yalwaan loolu rafetul da ngay takk sa ndigg loo am def ba yàlla ñëw fekke selo loolu mooy nit mais yalwaan yalwaan du wàllu jullit gis nga ñun ay seex lañ sax mais bu moom mii bu ko dara jotee rus naa dem sax naa dama koy yalwaaneel pour mu faju ndax bu ma yalwaanee rek pour man ni ma mel moo tax man ma yalwaan moo tax duma ma du ma ko juumee sax du ma ko juumee man liggéey laa xam liggéey gis nga lii man maa ko fi teg. waaw saabu bi dafa jeex damay jënd samay saabu samay omo. bu ko defee comme ni ma ko waxee rek ma bàyyi leen ñu tàggatoo joxe seen numéro waaye maa ngi woo Baol Volonté yëpp góor comme jigéen ministre yeeg bàyyiwuma kenn surtout première daam na ci jàpp bu baax waaye duma ma fàtte faali sekk borom waalo dama bëgg ñii ah nga gaaw ci ñoom bu ñu joxee numéro bi rek bëgg naa faali dafa gaaw dina def différence ayca ma bàyyi nga tàggatoo. waaw ñu lay sant di la gërëm Collé di lu émission bi macha allah yii moom faraluma si di ci kii sax mais xam nga kii dañoo dëkk te mënuma ñaan dara ma bañ santaat yàlla daal gën a ñu àpp suñu liggéey xam nga di ñaan yàlla mu barkeel ko parce que liggéey moom barke moo da cee gën boo amee cent francs sax na barke te gëm naa ni ñun suñu liggéey day barke parce que dañoo am suñu ñaanu yaay barke yonent bi yaay ju baax macha allah ñu ngi joxe sama numéro nag 77 219 15 83.